asalaamualeykum maa ngi leen di siyaare seen taalibe seen ndongo Seydina Jibril Kawsara moo amaat yéene dellu ak yéen ci talaatay maam Cheikh Ibra bi jële nañ ci Cheikh Moustapha Fall Falilu mu wax ni sëriñ saalihu mbakke yal na saa borom dolli ngërëm daa wax ni murit bu nekk la ñeewee moroomu muritam mooy lam ko gën a nuru saa baay Cheikh Ibra murit bu nekk lamiy muy ñeewee moroomu muritam mooy lam ko gënu nuru saa baay Cheikh Ibra jërëjëfi Serigne Touba maam Cheikh Ibra